Fàqland ci Touba Touba gaar bu mag ay xale yu góor di seeni kër ñëw dajaloo ci puxus bi lekk bu suur te leen naan ba màndi waxi nopp ñii amunu fu nu jëm amunu fu nu fanaan ñàqare dal leen tuskare ñeel leen tumuraanke nekk li gën a fës ca ñoom Dakaractu gunge honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga mu seeti leen gis leen seeni jafe-jafe déglu leen. waaw Touba day dëkk boo xamante ne bi Serigne Touba moom moo ñu jox ndigal moom moo wax ni euh, bu sañoon kenn du fa tur cigarette te ñun man boog dama yàgg di tur cigarette ba may nekk xale donc peut-être que sama dessin la ba yàlla def bon euh, bi ma ñëwee dama wax sa waaye man ne ko man dama bëgg pour. ñu ñëw toog fii mu ne ma kañ toog fii comme ay mag lañu nañ toog fii yaa ngi ñu ñu dox ñu paree ñu dem. mais mais li ma la fekk ngay toog du pône li wala pône la lii. xam na la ko sànq. Hmm. man bi ma ñëwee xaw ma fi kenn. waaw hmm. ah, bi ma ñëwee xaw ma ko. Hmm. muy borom baax. tegal ma waaw. tey lañu yàlla boole. voilà. waaw man sama liggéey instant bi groupe yi maa ngi ciy liggéey. defar groupe waaw groupe dama koy liggéey. même bëri na kër yu bëri fii dama koy entretien. moo tax bëccëg gi du ma fi ñëw mhm. ku la doon laaj. ndeysaan état Sénégal la war a dimbalee. Mhm. Euh, nga xam ne ñi ngi ci mbedd yi. ñi ngi ci mbedd yi. waaw ma maanaam dëkkuwaay yi rek. waaw yi xam naa ne bu dee lekk gi. Mm. Ah, tamit ñi ngi ñi ngi koy jox ñi ngi ñi ngi lekk de. Mm. waaw fii dëkk sëñ bi moom. Mm. étranger yi ñu fi ñëw ñëpp waxuñu ne lekkuñu ñu ngi lekk ñu ngi naan waaw comme waaw mun na doon tamit euh, situation waaw. Hmm? mun na la ca fekk moom. waaw parce que tamit yaa ngi fanaan. tisuma ci booy daal xawa xaw kii yéeme daal. waaw waaw doon lu yéeme daal moom waa ci xale yu ndaw yi. waaw. Euh, waaw foofu moom daal boo fa duggoon nii hmm. muy garage waaw garage Dakar waaw ndax man heure bu may jógee fii gars yi monté damay war a dem reeri fële mais su ma demee fekk leen ci suufu taabal yi foofu mett na tar na nekki man man du yéema sax moom ndax ma xam heure bi neexul tey yi ma fi tey yi man hmm. heure man sax tey maa sama njaboot ñooy dend hmm. war sama yaay war sama baay xam nga yaa dama tàqal maag loolu nag tàqal maag sama soxna te benn affaire kese la woon barke Sëñ Tuubaa kese lii man si problème mu kaso am si deux mois ñu takk ma sama soxna xam nga liggéey xam nga noonu sama soxna maa ngi moom bi tey fanaan lal bi mu fanaan suuf dem yaa dogal mu génn kër gi complètement barke Seex Blaat nii mais sama soxna sëriñ nag moom dasaan jëm na si man du bëri sama yaay jaana ay xaram jaana ay oram lépp ngir moom mais yaa dogal li mu yaa dogal rek day am soo tey mel ku soo kenn nu gën di ku ne gën ku sant mel ni yéen di mën a may lu leen raw sax. Mm-hmm. mais yàlla moo dogal adduna yàlla moo sàkk bi problème boobu noonu. Mm-hmm. problème mu euh, kii woon maçon. Mm-hmm. am si attroupement. ak koñ bi. yaa ngi dégg problème xeex kese la woon. billaahi ñi ñu ni man maa ko xaañ. pare moo ni problème mu kaso moo kii problème kii. fay bi bi te dooy mu tux dooy mu tux mais affaire bi moo xam ne affaire bi moo xam ne ba mu mer saa ma si jënd secret tu ko tux cigarette sax mos a dinañ di ko tux si kër keroog mos a tux barke xaar Moustapha kër laa mos a tux cigarette. aywa fa nag lépp yàlla daal baax na itam yàlla moom ala yàlla moo xam waaw. bi ma jógee bi ma jógee bi ma jógee si daara ji man maa koy maa demul maa koy ma dem de mais après maa ñoom daal fayal law la. Ah, waaw waaw su ma sëñ ma ne ma kër gu baax moom wax dëgg yàlla moom. ne ma kër gu baax mu bàyyi leen ko lépp ñun dëkk fa ma kër gi nekk ndabal coow mooy kër famille xam njaar moom njaar moom kenn njaar moom moom moo jar wax yar jar mom ken ko foye ya ngi so sama da nga yar tak ko siyon fa rek jeex mon man de problème keur la am. Hmm, mu ko indi fan nga dëkk. ties la dëkk. ties nga dëkk hmm. yow lan moy problème nga ne. sama wujj yaay laa jubóolul quoi. Hmm. moo may andil ay jafé jafé ci keur gi. waaw moo tax moo jékki-jékki rek raar bi. ah sa wujj moo la sonal biir kër mais am sa papa. sam pap mi ngi dund mais mu ngi Dakar. mais lu da cee waxul. non yëg na ko sax mais moom lu meer bi wax rek moom si lay ànd. daa mel ni koo tëkkaleeg sama sax. Hmm. waaw. moo tax nga génn. ne sa gaal boo sonn chaque jour yaa ngi sa waa kër yaa ngi yaa ngi teew teewlu sa waa gaale lu xew nga ñëw teew waaw am nga yéene yëpp waaye doo ko man te doo xam lu waral loolu lan la waaw yow sa jëmm loolu doo xam lan la waaw. ndax lo man ndax maa dal man mi ba tàyyi man dama am sama gaal ne fi tu pare mo ra pass dem ñibi wa pour ma dem suñu kër day man dana ma bu ko dem wa su ma fay génn day man dana may bo xam ne ma génnal kër gi wa sama papa man mën naa ne xamoo sama papa daa teel nelaw waaw gisante woon xamoo ko xamoo daa xonq xamoo da ñuul wax deug yalla sama yaay mi ngi bu faq man ni ñom di lëndëm tu guddi ba guddi la ñuy génn ña sa gi ci bopam lañuy taxawalu ndaxte amuñu ay dalluwaay. ñuy def daal loo xam ne nii mooy loolu suñ bëgg ko si dëkk beeg yooyu noonu ah, xam nga ay tux ak gees yi moom bu sa yow moom dañ ko def moom ah non man du ma gees mais damay bari na ko waaw ah, na mooy loolu rek situation yi ni mu demee fii bu ñu yi ñëw dañuy jàpp dañuy dóor def waaw. ñoom ñun xeebuñu dara ñun ñu am baax te bu ngeen ko amee ñu dërës ñun fii dañoo sonn quoi chaque jour dañuy jàpp di dóor ak loolu ñu koy def. waaw naqar bi lan la. waaw ñàkk liggéey waaw. waaw te daal dañuy ñaan yàlla moom ah, lépp loo xam ne daal mën nañu jàppale ñu am si liggéey moom ah. xam ne si dëkk bi ñu nekk daal fi ñu toog ñu daal bokk nañu waaw. mais Kounta tey bu ngeen amoon lan lan nga xam ban liggéey. waaw ah, non dëgg yàlla damay def taxi jaga damay def jakarta moom. moom nga yoroon waaw. mais dama amul moto sama waajur dafa génn àddina. Ah. sama mais boo ah. amoon taxi jakarta mais sa gars yi tey bu ngeen kër programme ñu wutal leen ay jakarta da ngeen ci mën a liggéey te jafe-jafe. waaw wax yàlla moom bu ko lijjantee ma wala neex dama lay samay waajur. waaw man moom samay waajur la am am keneen. damaa ñëwoon màggal si. si. waaw ah. ah, nga nekk fii ci sa gaañ. waaw ah. mais lu tax daloo ci kër. dama amagul kër gu ma dal rek. Hmm. mais lu tax biig ma ñëw fi nga may daw. seet dañoo tëbandoo am police yi. Hmm. ñëw fi xam police yi yenn saa yi dañu ñëw fii. Hmm. léegi nag dañoo gis oto mu ñuul moo tax ñu daw tëb. ngeen daw tëb. waaw. yaag sa gaañ. waaw ñu fa ne woon bari na. bari na kay. ñaata lañ woon. ëppoon dix personnes de. ngeen dix personnes. waaw. fi ngeen di fanaan fay ci kaw ñun fanaan ne fay ci kaw fay boy rek li gi dañ fay tëdd rek noonu bëccëg gi ngeen def bëccëg gi tamit la ñuy toog nii football daal lii rek lii nattu bu yàlla dogal la rek waaw nattu bu yàlla dogal la rek moom bëgg na ñibbi suñu kër moom waaw bëgg naa ñibbi suñu kër nga bëgg am liggéey quoi bëgg na am liggéey delluwaat suñu kër waaw foo dëkk Mbour laa dëkk. honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga di wax ni ñii dañu leen war a dimbali lu ko mooy jéeye ci kanam mënees na ko séntu ci réew mi di Sénégal. ma baaxoo chaque jamono ma jóg di saytu ñiy fanaan ci mbedd yi ak ni ñu ci mbedd yi lan mooy seen problème parce que kii fanaan ci mbedd du lu ko gënal kii yendu ci mbedd du lu ko gënal. am na ñu bëri ñoo xam ne seeti nañ leen ci guddi gi ñenn ñi dañoo wax ne seen problème dëgg dëgg dëgg dëgg mooy seen famille la am na ñoo xam ne seen yaay dafa nelaw ñu am problème ak seeni euh, wujju yaay mu génne leen kër ga. am na ñoo xam ne nee nañu seeni yaay mi ci kër gi mais amul baat ba tax na seen wujju yaay génne leen kër gi am na ñoo xam ne dañoo waxaat beneen côté dañoo wax ne euh, lu tuuti lañ am problème comme xeex police jàpp leen ñu dellu dellusiwaat ci seeni kër. Euh, seeni famille nanguwuñ leen a jël te loolu lu doy waar la ñuy wax askan wi ñuy bàyyi xel ci lu mel noonu tey fii ñu ñëw nag biig ñëw nañ fi ci guddi yéen ko dégg ñoom ñu ne bi ma ñëwee ci guddi gi dañ ma daw ñu bari dañ ma doon daw tey ñi ngi ñëw maa ngi ñoom ñu ngi saafante ñenn ñi nag am na ñoo xam sax nangu ñoo taxaw pour wax ak man mais ñenn ñi nangul nañ ma ko maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne nangul ngeen ma ko mais nag li am solo mooy ñu ngi wax euh, euh, ministre de la femme mairie Touba Euh, président de la république ñu xool naka la ñu def pour gën ñoo jàppale ci Touba. parce que li ñu gis euh, yëf yu doy waar la yoo xam ne buñ ci góor góorgóorlu jàppale xale yi dana dem ba ay jéey yu mag mën a am ci dëkk bi ndax tey ñii nga gis ñuy wër moom ñoom ñëpp ñenn ñi ay dawakati sareet lañ ñenn ñi ay dawakati jakarta lañ ñenn ñi leneen lañ mais wax nañu ne fii dañ fi nekk di tux di màndi di def leneen mais mais duñ fi def benn jéey. mais jéyee bu ñu man def dañ koy def feneen mais dellu siwaat fii mais nag problème bi mooy nañ leen gën a xool ñu xool lan la naka la ñuy def ba delluwaat ci leen ci seen i waajur naka lañu def ba jàppale leen ñu liggéey ñaka lañ def ba taxawu leen mais bu ñu leen bàyyee nii fii ak juróomi at ci kanam wala ñeenti at ci kanam mën na indi jéyee ndax lu tax mu mën a indi jéyee mooy mën nañoo dem ba ay bandi am ci dëkk beeg yeneen te gënu ko te commencé na fee am te mel nii rek moo ko indi kon nag ñu ngi ñaan ñu gën leen a taxawu gën leen a jàppale di ñaan it euh, comme ñu ko waxee wax nañ léegi ñoom ne euh, fii buñ fi nekkee dañu am jafe-jafe ak police ak gendarmerie ñuy wax ne ak kon ñuy wax mairie Touba ñu gën leen a bàyyi xel police it na leen gën a ba xel ñu gën leen taxaw xool nuñ leen di teetee ba delloowaat leen ci famille bi yaakaar naa loolu rek moo taxoon yitte yi. Ah